conférence thème magistrat yi ak coow lu ci seen biir suñu justice bii ñu bari di moolu ba yegg ci naa ko àll boon yi buñ ci bëggee boole nag ay juge ak ay magistrat yoo xam ne lu ñaaw lu ne ñu koy waxante ci seen biir di sulante ay mbóot ak dammante ay xeef président de la république mi njiital mboole magistrat yi ci réew mi moo ci war a gaaw addu dëgg la ministre de la justice euh, sumb na ci l'enquête waaye ñëpp xam nañu ne yéexe na ko ndax ca ndorte ga euh, dégg nañu ne dara ump ko ca woon daa xaar euh, ba mu jéggi dayoo lépp siiw ñëpp jot ci maître Malick Sall ñëw bëgg a bokk ca weeru avril la woon ca lépp tàmbale woon bu ko fàttee ñu fàttali ko ko ca lettre bu juge Amadou Yaya Dia tontu woon juge Ousmane kan am na ñetti weex tey bu ca teeloon a jóg kon biir na ni du ñu yegg si fii waaye ak lu mën a xew li jot a siiw moom dafa war a leer ndax ku ñu tëj jërub dundam ku ko mën a àtte génne ko kaso war nga ñoo wax fan nga ko teg wax ji nag yem fi jeex ñoom àttekat yi dong la arrangé nde ku ne xam na ni bu werante bi wéyee coow li bari askan wi jommi te mën naa taal réew mi ca la ñuy dégg lii xew lépp ci ruq ak ruqaani tribunal yi euh, bu ne fang la ngóor si sekk waxoon ne nañu gàddu yat fekki góor gi Abdoulaye Wade dafa mu nekk laaj ko suñuy milliards gis naa ni di nga dégg ñu gàddu yat dem wutali ay juge du ma ni ñëpp la ñuy fëgg waaye bari na ci ñoom attekat yi ñoo xam ni seen yoon euh, ci code pénal la mu wax mbaa code de procédure la mu wax seen atte yépp euh, du ko teg ci lu dul seen njariñal bopp bopp sa bopp euh, bu ñu ko bëggee dundee ci géewu politique bi du ñu jóg ci tojantey bopp gisal li xew ca ba Thierno Alassane Sall bindee li wërëm bi lu mu ci wax ni fii la ko jëlee lépp leer mu joxe ay firndeem ci démocratie xaste waru ci woon a am yoon nañu ko tontu ci anam ya mu leen tuumaale askan wi gindeeku ñu jàll ci leneen ba xuloo ak xeex du ci mën a am wàll xoolal ni ñu peinturé ay affiche am yi nekk ci biir mbedd mi moom ceex Thierno Alassane Sall danga naan xanaa sax li mu bind ci livre bi da ci am ñu ci gis seen bopp te bu ñu waxantee dëgg nag li xew ci ayu bés bii ñu nekk fii ci biir réew mi li ñu ci mën a taxaw seet lu mu ëpp fulla fuuf bari na ñu ci mën a wax ca Tiwaawan njabootu lëmm ñu faat leen ci anam yu kenn xamul fii ci pikin benn car rapide fekk ñetti jigéen ñu toog di jaay mu jaar ci seen kaw rey ñëpp am na ci ku wanoon lor ñu ne déetawaay ñu xëyee ab duwaañe bu rey doomam bu toll ci juróom benni at muy ñetti tiis yoo xam ne bu ci gën a tiis sa moroom nga ni bii la ñu ñaanal leen yàlla ajana tey sàkku ci yoon mu fexe ba lépp leer ngir seeni mbokk mën a ko